waa alhamdulilah euh, azakay morom koor azaka la boo xam ne cause bi mooy weeru koor maanaam bu ñuy jeexal weeru koor lislaam moom moo faratal ci bépp jullit mu génnee azakay morom koor mooy jullit moo koy génne jullit lañ koy jox azakay morom kor boobu ah, ñaari mbir ba ñetti mbir moo tax mu jóg benn bi mooy day laabal ki wooroon si yenn erreur yi mu doon def si koor gi mooy yenn léeg nga rëccale wax loo warul wax wax boo xam ne amul njariñ wala wax boo xam ne it maanaam waroo ko woon léegi boo génnee azakay morom koor boobu yàlla subhaanahu wa taala effacé la ko ñaareel biit mu nekk ñam boo xam ne dañ koy jox ki ñàq dañ koy jox ki ñàq duñ ko jox ku nekk mais ñaari nit lañ koy jox kenn ki faqiir la kenn ki miskin la faqiir mooy koo xam ne amul dara te mënul laaj boobaa dañ ko koy jox miskin mooy koo xam ne am na waaye li mu am doyul te mën na laaj su laajee aussi ñu jox ñooñu lañ koy jox ñooñu yoon salaa salaam Ah, yàlla wala abdullah ibn omar moo wax yonent bi salaa faratal na azakay morom koor si góor ak jigéen mag ak ndaw jaam ak gor waaye si yi léegi ñu digle ko jullit bu nekk war na ko génne ngir ne ndigalu yonent bi salaa te obligation la kon yow danga koy génne génneel ko sa soxna génneel ko it képp koo xam ne yaa yaa dundam si yow la war kon boo koy génnee mën nga ko génnee deux kilos cinq cent deux kilos cinq cent si lu ëpp lu nit ñi di dund si dëkk boobu walla nga génnee ko xaalis maanaam tey boo génnoo mille francs dina doy nit ku nekk huit cent pilis sa boo ko génnee baax na waaye mille francs moo gën a baax nga xam ne dangay ngay génne mille francs génne sa soxna mille francs ñi nga war a dundal bopp bu nekk nga génneel ko 1000 francs loolu si tënk moom mooy lu jëm si azakay morom ko voilà mu nekk lu am solo euh, ñi dët ma li nga xamante ni moo di korité gis nañ waa lislaam moom moom amul problème moom julli korité la xam léegi na nu ñuy def ba egg si julli korité moom yoon bim ñu jox mooy ñu séentu bu ñu séentuwee loolu mooy li ñu war bu ñu gisee weer bi boobaa day engagé jullit yi ñu wari su fekkee gisuñu ko indi na beneen àtte mooy ñu mottali si côté texte yi loolu moo fa am mooy séentu gis foofu la aj àtte bi suñu gisul booba boobaa mun nañ mottali beneen bis bi si tegu moom mooy kori léegi nag boroom xam yi seen gëstu ñoom ñooy xóotal ñaari mbir mooy benn est-ce que benn réew bu gisee loolu day engagé jullit yi yépp loolu li ëpp ci borom xam loolu la ñu wax loolu mooy ngir imam malik bi ñu nekk loolu mooy ngir imam abi xanifa ak ngir imam ahmad ngir imaamu shafii ñoom ñooy wax réew mu nekk ñoom dañu war a sukkandiku seen gis mais jamono jooju bi ñuy wax réew mooy bis boo xam ne jant bi dina fenk te tiimandoowul nit ñi maanaam ñii bu nekkee bëccëg 24 heures yi ñële dañuy nekk si guddi boobaa ñooñ mënuñu ànd parce que bokkuñu waxtu yi leen jant bi di tiimandoo léegi na ñoom ñu ne bu fekkee loolu am na kon dëkk bu ne war na basé wu léegi na si côté ñi nga laaj ñoom su fekkee seen xam-xam moo jeexe loolu benn mun nañ wéttali ko loolu mais duñ si basé wu kañ lañ si basé wu mooy bu ñu séentuwee boobaa fekkee lu ñu wax noonu la boobaa kon amul problème mais bu ñu séentuwee ñu gis parce que léeg loolu ay calcul la calcul mbiru doomu aadama la mais li engagé nit mooy ñu xool bu ñu gisee ñu woor wari bu fekkee gisuñu aussi mun nañ ba ñu wari lu dul nag état nga xam ne moom moo saytu ñëpp woo ñëpp waxtaan ak ñoom ba état bi jël responsabilité moom mooy séentul boppam ne réew mi ñëpp dañuy sukkandiku te boobaa ni muy am tribunal yi am si dëkk bi yépp dañ fay teg ay borom xam-xam ak ay juge euh, état bi organiser loolu wa wax heure yi ñuy séentu ku am xabaar demal tribunal bi la gën a jege nga yëgal leen ko léegi ñooy ñëpp bu ñëwee état bi génnee benn communiqué yenn réew yi noonu la ñuy doxal mais fii nag Sénégal comme wala démocratie la moo tax dañu ubbi bunt boo xam ne waruñu koon ubbee noonu